faat eh, kii di Baye eh, Baar Cissé loolu nag weer septembre la daw amoon daaw eh, ca station Kër Xaadim ba nekk ca Touba ñi nga xam te ne ñooy ay ñoñam nag moom piste boobu am na nag ñu ñu ci jàpp ñu ay mbokkam di sàkk ñu bàyyi leen ndax de gis na ni daal mbir mi dese naa leer ñoom li ñu bëgg mooy nag nguur gi daal di àddu ci mbir moom leeral ko dañuy déglu ki yor seen kaddu Cheikh Kébé ci micro Pape Balla Gueye. Baara Cissé nekkul woon koo xam ne gérant la boo xam ne total moo ko fi indi maanaam di jox carburant jël carburant di ko jox kon gérant financier ku xam ne xaalisu boppam la yoroon di liggéey ak waa Total léegi benn compte tam la amoon muy compte Total énergie xaalisam bépp ci la ko doon versé léegi nag moom mi ngi leen doon topp ñoom pour dem retraite ne ñoom bu ñu ma verselee sama xaalis rek ma bàyyi leen seeni station ci diggante boobu nag ci la xew-xew bi am beneen bi ci gën a doy waar nag mooy bi ñu ko defee li koy def ba pare maanaam benn portable bi nga xam ne moom lay defee situation ak waa Total boobu kese moom lañ jël yóbbu portable personnel am ko xaalisam jëluñu ko portable bi muy defee situation ak waa boobu kese lañ fi jël yóbbu boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla ñu jàpp ci ñaari ñaari nit ñii ma leen di wax muy Matar Gueye ak Modou Bob ñuy bëgg nag yoon na def liggéeyam xëy na nag ay jamono justice tumuranke woon na fii ci réew mi mais avec le nouveau gouvernement Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñi woote jub jubal ak jubbanti kon yaakaar naa li erreur la boo xam ne war nañu ko mën a jubbanti mooy ñu fexe dëgg ñu xam fan la féete bu fekkee ñoom ñoo ko def xayrun suñ ko deful nag ñu dem wëri ña ko def te ñii ñu may leen liberté bàyyi leen ñu dellu seeni njaboot ministre de la justice am ñi ngi koy ñi ngi koy interpellé ak le procureur de la république kon ñi ngi leen di ñaan nañ def seen liggéey ñaari xale yi ñi ngi tëdd njaareem gi ñu tëj leen fa boobaak léegi def na 10 mois jàpp mois mu nekkoon eh, Cheikh Kébé doon wax ci turu njaboot eh, bar Cissé huit heures tegal eh, ñeenti minutes. pour RFM mooy bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wéy ci xibaar yi wax ci leneen jëm ci wàllum koom ak Sénégal mi dakkal gum jëflanteem ak waa FMI loolu nag euh, li ko indi mooy nag euh, li euh, nguur gi siwal bu yàggul ci ne ay faux chiffres ak njut njaaj dafa am ci wàllum budget bi ak tamit wàllum bor bi di nag loo xam te ne nag waral na ba FMI sax ci weeru juillet bi weesu daal dinay bañal Sénégal koppar yu tollu ci 300 milliards ñett téeméeri milliards li ñu waroon a jox ñu daal di ko am déggoo ak nguur gi fi woon di président Macky Sall teewul nag nguur gi fi ne nee nañu ah, ñu ngi waxtaan ak eh, eh, FMI te yaakaar nañ daal ci ñetti weeru njëkk ci at mi di ñëw di 2025 juboo dina am ci seen diggante ak FMI leeraleeg Makumba Bey gouvernement bi dakkal na programme bi mu séqoon ak FMI dogal boobu nag ñu ngi ko jël ci assemblée yi nga xam ni ña ngi ko doon amalee ca Washington ci semaine bii ñu gën ministre de finances nee na dafa bëgg ñu renégocier waat beneen programme bu bees bu ñuy tàmbali te loolu balaa yetti weer yu njëkk yi ci at mii di ñëw di jeex lu mu yàgg-yàgg nee na ñi ngi négocier ak FMI ci xibaar yi nga xam ni moom la Bloomberg jottali programme bii ñu dakkal nag gouvernement bu Macky Sall moom moo ko waxaale woon ci avril 2023 bañ déggoo woon ak FMI mu waroon leen a jox junni ak téeméer ak juróom fukk ci milliards ci ñetti at ñu waroon koo dogat dogatee nag ni ñu leen koy joxee waaye FMI dafa mujjoon taxaw lànk ni 338 milliards yi mu leen waroon a jox weeru juin wële du leen ko jox fekk booba Macky Sall dem na Jomaay Fay ñëw leb 450 milliards li tax nag ñu dakkal programme bi ak FMI bokk na ci audite bi nga xam ni moom lañu siiwal fan yële te IGF def ko muy inspection générale des finances ni nag boru réew mi ëpp na fuuf li Macky Sall doon wax ni moom la ministre des finance bii fi nekk nee na Sénégal nag du remboursé dara ci xaalis boobee nga xamante ne nii jotoon nañ ko encaissé ba noppi dañ koy boole ci waxaale beneen programme bu bees bi. ci geneen fànn lu jëm ci pétrole beeg gaz bi nee na mënuñoo tàmbali match ba pare di soog a soppi règle yi. muy li ñu waxoon ni dañuy renégocier waat contrat yi nee na dañuy xool rek ndax code pétrolier bi tënk ni mu war a doxee respecté woon nañ ko wala deet su fekkee ay rëq-rëq am na ci ñu jubbanti ko. Makumba Bey ministre financier Diba kon doon teew ah, ci ndaje yaa yi nga xam te ni FMI ak banque mondiale ni nga ko doon amal ah, semaine bi ñu génn ca Washington dellu si fii ci réew mi dem ba Fatick ah, ñu dëkk ca ci croisement TP sàkku nag béréb yi nga xam ni dañ fay liggéeyee xorom te nekk seen quartier ñi daal di ko fay jëlee li ko waral mooy nag ay jëyee yu mu fay jur bi ci mujj mooy benn xale bu góor bu toll fukki at ak ñaar boo xam te ne dafa lab gannaaw bi mu daanee ci bassin bu fa nekk moo waral askanu teppe génnoon démb eh, ci mbedd mi amoon toogaanu ñaxtu eh, Aminata Goudiaby askanu quartier croisement TP toogaanu ñaxtu la ñu def ca seen koñ boobu li ñuy naqarlu ba fi mu ne mooy xale bi nga xam ni moom moo faatu ginnaaw bi nga xam ni dafa lab ci bassin yi nga xam ni fa la ñuy defaree xorom te mu jege loolu seen dëkkuwaay yi nag ñu ni bassin yooyu la ñu sàkku kilifa yi jëlee ko fa Amakodou Ndiaye moom mooy président ASC Pencum Sine nga xam ni foofee ca croisement TP la nekkee dafa am lu ñu naqari ñu jooytu woon ko ci kilifa yi ñu ko war a jooytu mu mel ni dañ ñu tànqamlu ba jéeye am ci 2021 lañ njëkk a bind maire ne ko suñ koñ bi dafa am ñu fiy jal xorom ñi premier 1er janvier 2024 lañ bind gouverneur bind préfet bind DESCOS ne leen suñ koñ bi dafa am kuñ fi gis mu ñëw di fi jéem a xorom te jàpp nañ ne fii mu bëgg a exploiter xorom waru ko fee def par war ta mën a am autorisation gouverneur déplacé wu ñëwal boppam ñu jàpp ne ñoom dinañu fajal suñ problème affaire bi traîné ñi toog lu yàgg amul rek ñoom nag am marche lañ bëggoon def waaye amuñu ci autorisation moo tax ñu mujj def ab toogaanu ñaxtu mbaat seen foofu la dëkk ak jaay doole ak bëri biir koñ bi jël ay dig yoo xamante ne aj ba ca di ki def xorom te amul benn autorisation suñu dëgg la ñu nekk suñuy doom ñooy dee xale boo xam ne mënoon na nekk lu nekk ëllëg ñoom sax ñu ni mës nañu bind a plainte ngir ñu jëlee leen fa bassin yooyu fi mu ne nii nag ñuy sàkku ci kilifa yi gannaaw ba nga xamee ni nit faatu na ci bassin yooyu ñu jóg ci mbir mi ba mois d'avril ñu déposé plainte ci procureur plainte bi jógee na procureur dem commissariat dem nañ ba commissariat pour ñu déglu ñu xamal ñu ne jaratu ko par jox nañ waa ji bi aménagé yëpp dina ko dindi avril ba léegi defuñ ci dara. ci weer yee ñu weesu président conseil départemental doon na def ay jéego ngir rek jéem a xool xool ni ñuy installé site yi ñuy defaree xorom ndaxte dafa commencé di bëri ci Fatick te ñu ci bëri anam yi ñuy installé seen site yooyu lu tegu ci yoon Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby ci Ndakaaru wax ci ñaxtu bu liggéeykat yi nekk ci groupe euh, Media Invest ëmb nag euh, i rajo ITV ak euh, journal Record ñoom nag fas yéene wéyal xeex bi ñu sumb boobaa léegi mot na nee nañ ci ay bés bi tamit dañu fas yéene bañ bank seen loxo duñ fas xànc ak morom ma ndaxte ba léegi nii seen i kilifa euh, tontuwuñ leen ci lu jëm nag ci seen wàllu juróom juróomi weeru payoor ñi sàkkuñu fay leen ko dañuy déglu ki jiite section Synpics bu média Mouhamed Kandji ci jokkoom ak Gabriel Koli. alors comme ni nga ko waxee euh, ñu ngi jeexal semaine boo xamante ni dañu bankoon suñuy yoxoo toog suñuy kër loolu nag euh, liggéeykat yi ci boppam ñoom ñoo ko décider euh, tënku ci code du travail ci bi nga xamante ni euh, tey dafa may liggéeykat bi bu toogee juróom ñetti fan ginnaaw bu weer bi deewee jotul euh, payooram mu mën a toog ci këram ñun juróomi weer a ngi nii jotuñu suñuy payoor dem nañ ba yoratuñ lu tax ñu mën a def suñu transport Euh, li tax bu ñu demee bureau ñu euh, mën a xew xewlu am problème à côté ndax euh, loi yi yeeg yi nga xamante ni moom moo ci topp ubbite école bi alors ñu bankoon suñu yoxoo pour une semaine ñu gis ni depuis boobu suñuy njaatigee amaguñ dara loo xamante ni teg nañu ko suñu loxo malgré action yi nga xamante ni may nañ ko durant la semaine Euh, malgré médiation yi nga xamante ne ñu bëri ñu ko doon def di ay nit ñu baax euh, li ñu euh, gis ci groupe bi neexu leen mais gis nañu ni amul benn saafara boo xamante ne indi nañ ko ci et malheureusement ñu nekk ci benn problème boo xamante ni benn solution kese la am te solution bi mooy fay ñi nga xamante ni moom moo di liggéeykat yi li ñu leen mais defuñu loolu kon moo tax ñu jëmaat ci beneen semaine boo xamante ni liggéeykat yi kenn ku ci nekk ci sa bopp yaa ni ah mankat kat loo xamante ni war na ma mën a tax ma may ma dem euh, liggéey ji euh, donc dañu fas yéene toogaat ci suñuy kër. mu nekkoon euh, Mouhamed Kandji jiite banqaasu Synpics ba nekk ci groupe de presse bi di média fukki minute ak ñaar tegu ci juróom ñetti waxtu ca palais de la république ak ca building administratif. ak RFM. kumpa na wax euh, ci coowal ONAS euh, gi nga xamante ne nag euh, tuddoon nañ ci ministre Cheikh Tidiane Dièye ministre hydraulique ak assainissement ne nag ki ko tuumaloon di Cheikh Dieng jiite woon fi kër gii di ONAS wax nag ne moom ministre bi moo daal di nag dugal ci marché bi ñaari këru liggéeykaay yoo xamante ne dañ leen génne woon ñu dugaat leen moom mu njort ne gàdda fee am coow loolu nag ministre boobu léegi àdduwu ci woon muy nag bu njëkk mu ci wax li mu xam ne moo di ne benn coow amu ci. genn nger amul ci mbirum ONAS bi li xew rek moo di ni ay nit ñoo bëgg euh, campagne mbirum ONAS ak ASER waaye dañuy sonal seen bopp dañuy déglu kàddu yi ci ministre Cheikh Tidiane Dièye ci micro suñu naataango Biroum News coow loolu dama dama ci bëggul sax sori parce que benn mooy justice a ngi ciy def liggéey te commencé na sax ay audition ONAS scandale amu fa ASER bi ñuy tudd fan yi scandale amu fa dañu nekk ak opposition boo xam ne amul leneen loolu la bëgg jël muy thème de campagne li fa am ci ñaar yooyu jubbanti la ministre de l'hydraulique et de l'assainissement am ay structure sous sa responsabilité politique bi ma am devant le gouvernement et devant le peuple sénégalais mooy bu ma gisee luy dox lu jaaduwul ma lor sénégalais yi ma parce que man maay rendre compte tutelle ministre bi mooy sa kilifa boo demee ba fàtte loolu naan dañu fal ministre bi ci décret fal ci décret donc lu ma neex laay def mooy xamuloo état di dox bi loolu amee ma rectifier mooy jubbanti président de la république bi nga xam ne moom mooy nommé mooy limogé moom mi nommé moo limogé foofu débat amul may bëgg a wax rek loolu moo tax ma wax ko fii parce que ñi ñooy sama famille politique parce que damay bañ ñu dem si terrain bàyyi opposition ñàkk fayda mosuñu ma ci dégg waxuma la jëf ju ñàkk fayda kon ma leen di wax ni y a jamais et il n'y aura jamais de scandale waxuma ONAS mais dans le ministre ministère de l'hydraulique et de l'assainissement tant man maay ministre de l'hydraulique et de l'assainissement kenn du ko fa dégg may profiter di wax ni opposition bi bëgg jël loolu comme un os à yax rek bu ñuy seeñ foofu ak azer nañu wuti leneen nañu wutu leneen di kaddu yi Cheikh Tidiane Dièye ministre de l'hydraulique ak assainissement euh, ci micro suñuy natango yu Bour News mu fekk nag jamono jooju premier Ousmane Sonko wax ne bépp ministre wala directeur général boo xamante ni euh, coowal ger wala lubal moom bu dee sax fukki dërëm euh, tu jiñ leen la ko dinañ la topp ci wàllum yoon moom premier Ousmane Sonko nekk tam tête de liste bu Pastef wax tamit mbébét yoo xamante ne am nañ ko pour diwaanu cees mi ngi ko xam ne nag démba foofule ca benn dëkk ñaari gaar bi ñu ubbi seen campagne ñoom waa Pastef Cheikh Anta Diop. njiitu Pastef di tedd list bi premier ministre Ousmane Sonko dikkam fii ci Thiès. fësal na ne li nga xamante ne nas na ko moom mooy fexe nag ba région yépp tolloo ci kaw loolu sax nee na lu ñuy wax ay pôle économique la bëgg samp moo tax loolu mooy suñu premier paris boo jëlee pôle Thiès bi mu ngi représenté un peu moins de huit pour cent ci économie nationale loolu tuuti na wax na ko léegi moom Birame Souleye capacité yi am fii kenn xamul nu mu toll moo tax nag ci suñu programme ñu ne faw rek ñu jóg ci mbir moomu Thiès am na phosphate am na zircon Thiès am na suuf su nangu ci zone des Niayes bi moom it yëkkati nay kàddoom jëmale ko ci ICS. boo jëlee lu mel ni ICS de 1984 à mooy la seule entreprise bu am ñetti convention ba ma defee calcul ci ñeenti at yi weesu li ma waroon fay impôt rek mbat na 150 yoo xam ne nee na France de redevance dañ ko a fay ñu lànk ne duñ ko fay ba tey ji 194 milliards sax 111 ñu ne duñ ko fay waaye ma gaaral ne dañ ko fay parce réew mi nag dafa am boroom moo tax bi ñu toogee ñun li ma njëkk def président nangul ma ko mooy ñu taxawal benn kuréel boo xam ne moom la ñu tuddee commission de relecture des conventions et des contrats commission boobu ngi liggéey fii ci primature moom ci jëmm boppam it nee na du baale benn yoon képp koo xamante ne yaa ngi ci nguur gi di jël koppar yoo moomul di ko aakimoo chaque jour ma ko ministre ak directeur général chef d'agence ak ku ma yéeg ni jël nga fukki dërëm boo moomut non seulement doo yendu foofu waaye di ko layoog yoon mitingum Thiès bi de bari woon na nit lool jóge woon nañ fu nekk ci diggante Thiès département bu Tivaouane ak bu Mbour RFM Thiès Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop yi ba léegi la wax lu saxal wàllum campagne bi ak wàllum politique ay kilifay APR yu bëree bi fàq di daw dem jamono ji ca Pastef li nu mel nag euh, lañ ne mekku tam ca diwaanu Matam ca dëkk bi dina ba ji siwal nga xam te ne sax maire ba Abdoulaye Sali Sall moom tamit fekki na waa Pastef di dogal boo xam te ne ñeenti conseil ñaawlu nañ ko nee nag nit da nga war a gore Ali Bandel ci leen gannaaw xibaar bi ñeel démissionnem rassemblement bu mag la ñu woote ca Nabadji Civol ngir xamal lañ ngir xamal askan wi ne du ànd ak Abdoulaye Sall Sall responsable yooyee nag bokk ci commune bu gën a am fayda ci région bu Matam fësal turu juróom fukki ak ñeenti conseillers municipaux ci juróom fukk yi composé conseil municipal bi ne dañuy des ngir wooteel coalition takku wallu bi Macky Sall jiite baru ndaw lañu ñu seen kàddu. parce que bi rajo yi. ñëm ñëpp ñu ngi dégg ne le maire Nabadji Cissé dafa dem rejoindre maanaam Pastef loola nag dafa war a jar ñu leeral ko ci nit ñi parce que mën ngaa dem te doo yóbbaale maire bi 70 conseillers la 56 conseillers yëpp ñu ngi fi toog adjoint maire yi 6 lañ man mii ci ñooñu laa bokk maa ngi nii toog 4 yi ñu ngi fi bu ñu waxee maire bi dem na responsable politique moom bu demee moo dem demin boppam waroon naa gën a mën a rafet ndax moo président Macky Sall ku nekk xam na fi mu jaar ak moom kooko tey yaakaar naa bu desoon benn carte sax benn carte bu dee teraanga la ñuy wax ak ngor benn carte bu waroon des Nabadji fii mu war ne carte APR yaakaar naa carte la war na doon. ay notable yu bawoo Ndouloumadji di dëkkub juddu way juru président Macky Sall di woo askan wi ñu des ak seen ngor joxante loxo ngir dar seen doom bi jiite liste takk wallu Sénégal waaye nag défection yi nga xamante ni commencé nañ koo tudd dina doon ngëneel ci Pastef ndax parti Ousmane Sonko bi bi mu juddoo ba léegi musta gañe benn commune ci région bu Matam mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fi ci doonu Matam pour RFM. Aliou Bandel Niang ak kaddu yi Madiambal Diagne di taskatu xibaar bokk tam eh, ci liste eh, jàmm ak njëriñ bu Amadou Ba ñu investir ko yëkkati démb ci grand jury xam ne nag ak déggoo ak deal dafa am eh, diggante Ousmane Sonko ak Macky moo waral ñoom Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye génn kaso laataa ñuy amal élection présidentielle yi moom nag dem sax ba ne mbirum koppar tamit Macky Sall jàppale na ko ñii di waa Pastef mbir moom nag wax yu garaaw la bu ñu mbir moom war nañ ko leeral naka noonu tam sociologue bi di Souleymane Lo iti saw ginnaaw Madiambal Diagne bi mu génnee ne Macky sàll ak Ousmane Sonko dañu doon déggoo ginnaaw bi Sonko nekk ci kaso bi dem sax bay naan moom Macky Sall defa financé ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci nguur gi li le Seydi Gassama bu Amnesty International mi ngi sàkku ci journaliste bi mu daal indi ay preuve boobu ma ñabal Fred dafa yàgg di koy wax euh, mosuñu dëgg mental wax ci dara mosuñu dëgg Sonko wax ci dara moom journaliste la te nee dafa am réseau su dee journaliste dëggantaan la am na réseau nest bi euh, ko jël mu teg ko ci sa ci table bi Sénégal yi xam ko ñu xam lan ak lan moo ci biir protocole bi docteur Souleymane Lo nekk sociologue moom dafa jàpp ni kàddu ma jàmbal jaañi nekkul dara lu dul ay kàddu ku nekk ci campagne ay manipulation la ko jàppee en général élection képp kuy politicien rawatina ma Madiambal Diagne nga xamante dafa bokk ci candidat yi euh, dañuy faral di euh, tuumalante tuumalante boobu nag liñ ci jubbu euh, li ci njëkk mooy ñu fexe ba nga xamante ni dinañu jaxase xelu askan bi rawatina donc électeurs yi indi ci jiixi jaaxa pour que ñu gën a war a mën a fexe ba détourner leen ak li nga xamante ni mooy seen adversaires yi donc benn bi aussi bokk na ci ñu fexe ba nga xamante ni ñoom du ñu wax lu dul seen i wax maanaam attirer l'attention nit ñi nga xamante ni képp kuy waxte da ngaa li ma jambel wax wala ma sàmba wax loolu lañ ci jub Seydi Gassama nag mi ngi woo ngir ñu xoolaat li nga xamante ni moo di loi d'amnistie bi muy dem bay xam ne sax même su fekkee ne njiitum réew bi fi nekkoon ay loxoom taxe na ci justice dakaa war a wóolu en tout cas ñun ma mën a wax mooy ñaawteef fi fi amoon doomu Sénégal lu mu juróom benn ko juróom ñàkk seen bakkan njaboot yooyu yëpp dañuy déposé lay PS yaa ngi ci ay li ñuy ñaan ñun mooy quel soit majorité bi ñu assemblée a rek ñu wax ci ñeen anam lay nga nga nga ñàkk sa bakkan su dee nag ci biir enquête yi juge yi dañuy dem bi établir que tey la Matar moo doon joxe ndigal li moom ci boppam n'est-ce pas pour que ñu rayee ni boobaa magistrat yi xam na am nañ xam nañ seen liggéey dinañ ko convoqué dinañ ko déglul n'est-ce pas pour que mu mun a rendre compte comme tous les Sénégalais. protocole manuel bi nag mu dox diggante président bi fi nekkoon di Macky Sall ak premier ministre bi fi ne di Ousmane Sonko experts yi ñu laaj ci kàddu ma jàmbal yi nag ñoom ñu ngi sàkku ci journaliste bi mu daal di indi ay preuve ngir leeral ñëpp. RFI Sport. kon ñu yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne Diagne maa ngi laa fay As Ndiogu. loo ko adoore. wàllu football ak Ligue 1 Sénégal nu ko adoore euh, démb HLM bu Ndakaaru dafa daal di rek euh, bett Casa Sport daan ko ñaari bal si benn mu nekk ndam bu njëkk bu HLM am si euh, saison bi si Ligue 1 bi nga xam ne daf ci daal di ñëw gan geneen jongante doxoon diggante Pikine ak waa Linguère ca seen stade ba ca Alassane Djigo mu feesoon dell ak nit ndax Pikine bokk na ci équipe yi ëpp supporter si euh, Ligue 1 bi fii ci Ndakaaru dañoo témboog waa Linguère yi ndam demul ndam dikkul waa Linguère yi bi mooy seen ñaareel bi jongante ak ñaareel bi euh, match nul bu ñu am leneen si jongante yi mu doxoon tam diggante génération foot ak Teungueth FC moo nekkoon euh, jongante daanaka bu gënoon a fës ñu ko doon xaar mu doxoon diggante ñaari équipe yi bokk benn dëkk muy Teungueth dañoo tëwoo itam kenn dugalul dara ci sa morom leneen itam géejawaay dafa daal di rek góorgóorlu ba dem euh, daan équipe bu sonakos bi ña benn bal si dara loolu tax kon ba fi mu toll nii géejawaay daal di nag euh, am ndamam daal di nag euh, taxaw si ñetti points yi ngir mën a doxal jëm ci kaw championnat bi léegi si bu ñu fàttalikoo xool classement bi Dakar Sacré-Cœur moom moo si jiitu dafa am ñeenti poñ topp ci moom équipe bu Gorée Jaraaf ak géejawaay football club ak Tëngéej ak AGEL bu Rufisque ñoom dañoo am rek ku ci nekk nag benn victoire ak benn. benn match nul si wàllu Ligue 2 bi euh, ñii di waa Snaps Excellence bu Thiès dañoo daal di rek euh, daan amitié benn bal si dara Njàmbur bu Louga daal di itam daan Dakar Sacré-Cœur ñaari bal si benn RS Yoff moom dañ ko daal di daan ci terrain am ñaari bal si benn Bambey moo ko daal di fekk si bu noppi dóor ko benn bal si dara ñu ne nag euh, si altine bi na mooy jongante ak équipe bu ñaari tali leneen itam des ko waxtaanee mu jëm ci footballu tubaab yi démb ca Marseille Marseille yu bëri daanaka la ñu réeree neexu leen ndax dañoo amoon yàqin ni dinañu dóor Paris Saint-Germain te seen terrain ba wante eh, Paris mën fekk ba noppi dóor leen ñetti bal ci dara def ni waa Barça defoon ci classico ba mooy fekki waa Real dóor leen ñeenti bal si eh, dara ci wàllu Angleterre moom Arsenal. ak euh, Liverpool dañoo témboo mm, ku ne am nga ñaari baal sa ak morom mu nekkoon jongante bu métti métti ndax euh, ñoom ñaar ñëpp dañuy xëccu ngir yéeg ca kaw léegi Liverpool moo topp si ginnaaw Manchester City bi nga xam ni moom moo jiitagum si boobule championnat Chelsea itam daal dina fexeendi ba daan Newcastle ñaari baal si benn Nicolas Jackson def na passe décisive maanaam dafa joxe gars yi dugal ba noppi ñu jox ko itam mu dugal kon Jackson fu mu toll nii mu ngi mu ngi doxal yëf yi noonu ko bëggee ca moom ca moom réew di euh, Angleterre leneen itam euh, des ko euh, waxtaanee ci wàllu tàggat yaram yi mu jëm si wàllu boxe Sénégal am nanu benn médaille door fële ca Kinshasa ci quatre-vingt moins de quatre-vingt-douze kilos yi. loolu nag du ñàkk ci xabaaru bëccëg gi dinañ ci dikk ak président fédération euh, bu boxe waaye itam dinañ ci waxtaan ak directeur technique bi ngir ñu xool euh, résultat yi ndax ci fukki xale ak juróom-ñaar yi ñu mm-hmm. am na ci ci njeextal ay bés bi ñenn ñu ci ami raaya mm-hmm. ba am benn médaille nga xam ne nag ñaar fukki at benn ngi nii ci mm. ginnaaw mm. le Sénégal ga doon am médaille d'or ci wàllu boobu la jaloore bu rëy mm-hmm. a a a la foog naa ne ñoom itam bu ñu ñibbisee war nañ def ay mm. neexal te itam mm-hmm. seen capitaine bi di Alseyni Ndiaye euh, moom nga xam ni daanaka ci juróom ñaari juróom ñett ndam yëpp mhm. loxo ma nga ca surtout mhm. bii nu weesu mhm. ndax contre Égypte def na jàlloro yu mag a mag ak si final bi tam foog naa ne moom laaj na bu ñu ñëwee ñu takkal ko ay ay médaille rek ay médaille du lion ndax euh, saa su solee mayo bi rek wàññi na fulaak fayda ci équipe nationale bi am na solo kon jar nañu jaadu ko ñu joxal ko euh, takkal ko junjun ñi ku def lu am lu rëy Abdou Diouf moo ko waxoon de walaay tawarkal société industrielle papeterie express du Sénégal SIPEX mi defar kay espoir ak kay teranga Touba Darou Salam Caro Prestige seen lait de bébé Doudoune NSIA assurance ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay dañ ci ànd ak Hadj Assane Gueye. observateur xëyee waxtaan wu yaatu ak Aliou Sall nekkoon maire bu waaye mu naan ci am na lépp ba mu des xel mu dal ñëwaat na ci waxtaan wu yaatu woowee ci li waral mu fareek Amadou Ba wax na it ci menaces yi di ay artu yu lang ci boppu mag ja président ba fi woon bu Sénégal président Macky Sall wax it ci mbirum Franck Timis ak it kuréel gii di pôle judiciaire financier observateur ci weneen wàll ak ndorteelu campagne bi ngir wotey palam député 27 novembre 2024 xëy defab gëstu gëstu ci mën-mënu Ousmane Sonko di fay ay coow yu leen di topp saa su ne naka noonu it yéenekaay bu groupe Futurs Médias wax na ci Amadou Ba ak planam jëm ci wàññi njëgam dund mi ak it Barthélemy Dias ci mbébétam xeex fi lii di ay fenn yu faral di kawe lool maanaam mensonge d'État yi mu gis ne dañ ko fay bëgg a daganal wotey palum député yi nag ak ndorteelu campagne bi démb Le Quotidien yi jàppe ko xareb ñeenti ponkal ya la guerre des quatre grands Pastef ak fa mu mujjee mujj ci wàllum transhumance ngir moytu gàcce Ba mi bëgg a boppam Macky Sall mi bàkk Barthélemy mi bëgg a bokk ci wàññi bi bañ a doon ku nuy teggi Le Soleil moom gis ne Pastef moo gën a diis ab départ démb bërit la def ak ay xelu yéenekaay bu ànd ne ku nekk nag ci kàngam yi ak yoon wa nga jël démb Ousmane Sonko nga woon ca zone des ñaay ak diwaanu Thiès Amadou Ba ca Guédiawaye Barthélemy Dias ca Biscuiterie Macky Sall moom ñu koy séenu ba tey ak source a soxna Anta Babacar Ngom bu sàmm sa kàddu yëkkatey kàddu ca mbuur di sàkku ci askan wi ñu dakkal na mu gën a gaawe li mu tudde yorin wu bon bu waa Pastef Amadou Ba ak jàmm ak moom ca Guédiawaye jàpp jàpp ne nguur gi fi ne nanuy liggéeyee daa yeex lool dañuy watatu ci l'info Ousmane Sonko ci mitingam ca Thiès di leen dëkk mu ne 17 novembre lañuy xam ne ndeke opposition amul Sénégal ñu des ak l'info mi séq waxtaan wu yaatoog Mamadou Racine Sy tëdd Lys Alsaax mu naan ca dinañu déglu askan wi ca daañu leen dégg dina liggéey it ci assemblée bu leen fa askan wi yóbboo ci luy gënal nekkinu retraité yi yeesalit système retraite bi Sénégal dinañu yittewoo it ci mel ni wàllu xëyu ndaw ñi ci gis-gisam moom Mamadou Racine Sy wàllu ñàkkum xëyum ndaw ñi kenn mënu ko saafara lu may dangaa jafandu ci ci secteur privé national bi ci laas Mouhamadou Madane Kane di ci wax ne danoo tàyyi sonn lool ci assemblée nationale bu président di lengee saa su ne président Macky Sall su ngeen bëggee xam moom lu waral mu nangoo doon tête de liste yi élection jàng leen ci laas ci gàttal mu ne élection yi daa fekk ne dafa am solo lool jongante la ngir ñu gën a ñoŋal sunu démocratie sàmm li ñu fi jot liggéey rawatina li soxal sunu koom-koom ci gàttal mu ne ngir njariñal réew mi moo waral mu duggaat ci géew bi Amadou Ba tête de liste coalition Nafoori Sénégal moom ci laas gis ne jikko yi leen war a soppi ci arène politique bi ana anami défini politique bi l'évidence moom ne alliance pour le mu ngi woon ci terrain bi ci action ak mobilisation ànd ci ak tête de listam Alioune Sarr yéenekaay bi wax ci Pastef mi wéy di dalali gan Mamadou Ndiaye bu PDS ñëw na wàlliyansi ci ñoom ca Fatick it maam Adama Ndour fekki na waa parti bii di Pastef Sud Quotidien ne mbër yi nag ñaar fukk ak benn ci fan lañu am ngir yeey askan wi professeur El Hadj Oumar Diop jàngalekat droit public ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru njort ne ndax ci taarix ci Sénégal ba fii nguur nu fi mas a jox pale ba dañuy wéyale ak yow ba ci assemblée nationale CNRA mi lànk débat bi Ousmane Sonko Amadou Ba it mu ne àndu ca ndax CNRA warul tëju rek ràpp ci texte yi direct news wax ci lu yaatu ci Doura Baldé di njàppale bu am solo un soutien de taille ngir Pastef moom ak waa Kolda debout dogal nañu àndi ak waa Pastef ngir mu ne ñu am majorité bu dëgër buy tax soppi yu xóot yi ñu digoon askanu Sénégal mars 2024 ñu man ko doxale ku ne nag ak na ngay campagne bu ñii di seenu toogu yee ci assemblée nationale ña des ñoom di seenu dund ak ca tane gañ leen di xoymet ca tugal moo waral ñuy wéy di jël gaal yi yéeni kaay bi di réew mi ne ñaari téeméer ak fanweeri doomu Sénégal ñu bëggoon mbëkki la marin bi kar ci guddig ñaar fukki fanak ak juróom benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru octobre bi ca biir géej téeméeri kilomètre ak fanweer booy jugee ndakaaru daal di leen di wañ ñi mu mel ni kon xëyam ndaw ñi jot nañu jël ko ci na mu ware waslu ci àq ca bañ koo politiqué sunu bañee sunu ndaw ñi jeex biir géej société industrielle papeterie express du Sénégal SIPEX mi defar kay espoir ak kay teranga Touba Darou Salam Caro Prestige seen lait de du Doudoun NSIA assurance ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi yàlla Assane Gueye lañ ci àndal ñu koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu leen yem nestur ñu dafa pàttali ci li gën a fës ci xibaar yi coowal mbëkk mi lopp ñaar téeméeri nit ci jëleen gaal bëgg dem Espagne la ñu jàpp ci waaxu Ndakaar yi waa marine ñoo def lu ni mel nguur gi jël dogal dakkalagum programme bi dox digganteem ak kuréel gii di FMI li ko indi mooy le gouvernement siwul ay njut njaaj ci budget bi ak i faux chiffre waaye fi muy sax bañal Sénégal koppar yëpp 300 milliards di ñetti téeméeri milliards yu ne waroon jox ci weeru juillet bi weesu muy bu njëkk ministre Cheikh Tidiane Dièye di addu ci coowal ONAS gi ñu koy jiiñ ger nee na loolu dara amu ci waa opposition rek ñoo koy ŋaw ñëw ngir am lu ñu wax ci campagne bi wante dañu sonal seen bopp déglu ngeen kàddu yi Cheikh di Dieye ci xibaar yi liggéeykat yu média yi wéyal seen xeex ñoom ñu di laaj juróomi weer yu payoor fas yéene bankaat seen loxo tam ci semaine bi mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi sa mbay ak Amady Ndiaye ci machine bi ci kanam tuddi seen émission pencoo ngeen ci ànd ak Hadj Assane Gueye jaajëf ci ànd beeg ak jàmm spécial rentrée des classes ah ubbite école bi ñëw na seen société SIPEX di société industrielle papeterie express bu Sénégal am équipe bu dynamique te qualifiée à 100 pour cent ay jeunes sénégalais jënd seen i machine industrielle de la haute technologie di leen proposer la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée la SIPEX lance le cahier Teranga en couverture plastique et en couverture cartonnée avec une promotion exceptionnelle.